dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenikaay yi doxee ko vox populi mi xëy nag dikkaat ci parti pastef bi nga xamante ni daal dinañu amal am ndaje démb mu ne nag pastef deuxième acte de la résurrection après la prise du pouvoir gannaaw ba nga xamante ni di dissoudre nañ parti boobule waaye itam ñu daal di dem ci élection njiitu réew mi daal di koy gagné jotaat li nga xam te ni moom moo nekk seen àq ak seen yelleef maanaam seen légalité ni ki démb la parti bi nag daal di daje ak ay militants bureau politique bi ñoo daal di daje vox populi daal di fësal ci xëtam bu njëkk nataalub Ilimani Diop jëwriñ di Ousmane Sonko di njiital parti boobulee si du quotidien ne ñu nag concertation imminente autour des réformes institutionnelles maanaam lu ñeel yeesalaat banqaas réewum Sénégal mu ne Diomaye accélère la cadence noo ne la ko si du quotidien daal di xëy fësale rek mu ne éclairage professeur Seydi Alpha Ndiaye objection Sud FM di ne ko wax xalaatam ci lu ñeel gouvernement boobu Sénégal le quotidien nañu remobilisation de Benno petit pas de a Benno Bokk Yaakaar mu ne après le Dakar il a envoyé une délégation à Kaffrine moom njiitu réew ba woon Macky Sall yónni ay nit ñu daal di dem foofee nga xam te moom moo di ca Kaffrine gannaaw ba nga xam te am na ñeneen ñum yónni ñu daal di dem fekkee ji Dakar ba Médina Gounass le quotidien yéeni kaay moom moo ñu ko xam na waaye ci biir journal bi ba léegi lu jëm ci wàllum sommet bu OCI yi e jotaayu xeet yi nga xam te ñoo dajale kër yi l'islam yi ci àdduna wërgal këpp mu ne Dakar dénonce un génocide à Gaza maanaam na nga xamante ni noonu mu ngi koy naqarlu waaye Sonko lu ci lu jëm ci wàllum démission ca mairie boobu Ziguinchor journal bii di Le Quotidien nañu nag Ousmane Sonko daal dina koy dëggal moom tekki na ndombal tànkam ca mairie boobu Ziguinchor le point acte nañu Ba maanaam ki nga xam te moom moo nekkoon ilimaan yi jëwriñ ji nekkoon candidat boobu coalition Benno Bokk moom moo nar a jiite coalition Bokk Yaakaar jamono jile kii di njiitu di Macky Sall nag moom fas yéene na journal bii di point acte daal di xamal réew mi quotidien nañu Penda Mbow parle des épouses des chefs d'État mu ngi wax ci soxna njiitu réew yi nga xam te ni nekkoon nañu fi moom Penda ñu mën ko lire ci biir journal bii di réew mi quotidien mu ne il faut neutraliser les premières dames faaw rek ñu daal yemale seenum pecc xool bu baax a baax nag nga xam te ni noonee la ñuy doxalee ndax nag lu ko mooy rek ñoom danañu xaw a ëppal lu jëm ci quinzième sommet bopp OCI yi ñu ne les cinquante sept pour une saisine

bi kii di Ousmane Sonko dikkaat na ci gannaaw ba nga xamante ne ñu ngi amal seen réunion bureau politique ñoom waa Pastef yi en vedette nee ñu nag Mayoro Mbaye di administrateur bu société moom nag mu ngay xam ne rek ne mu ne lu jëm ci rétention prolongée ayu documents originaux frauduleux ak li nga xamante nii ñeel na wàllum fondement ci wàllum justice moom nag daal dina dikkaat ci mbir moom ci na mu gën a yaatu jafe-jafe yi nga xam te nemmeeku nañ ko ci ak ñi falsifier ay documents administratifs ci en vedette mu mën ko lire ci biir journal boobu parti démocratique sénégalais des postes stratégiques rajeunis maanaam yenn ci poste yi nga xam te ñoom ci biir parti boobu daal jël lañ ko dénk ko ay ndaw révélation yéeni kaay moom moo ci mbir moo lee yu ndaw yi itam recette bi nga xam te ni imo AGETIP moom la ñu fas yéene taxawal ngir ñi nga xam di ndaw ñu wutal ñu leenum xëy journal bi dikkaat na ci le républicain yéeni kaay nañu fële ca Cambérène benn boutiquier moom nag moom moo daal di woo benn soxna su ndaw boo xamante ni daf ko daal di xëy rek nax ko ba mu ñëw ci moom mu daal di koy sàkku les républicains yéen i moo ñu ko xamal le soleil quotidien dikkaat ci fukk ak juróomeelu ñu njiit réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye la muy sàkku nag moom mooy ñu daal di respecté seen àq ak seen yelleef kàddu yooyu la yëkkati xam te moom moo ko yër bi di le soleil yéen i kaay le peuple quotidien nañu nag lu jëm ci wàllum suspension liggéey bi nga xam ñu ngi ko doon amal ci littoralub Sénégal Diomaye dans le labyrinthe du foncier noonu la journal bi xam ne la dépêche yéen i kaay nañu victoire de Eumeu Sène sur Sa ki nga xam te moo di Eumeu Sène borom taay shinga dinay daan rakku Balla Gaye 2 di Sa ci lamb ji ñu doon amal niki demb la dépêche yéen i kaay moo ñu xamal mbir moom lay direct news ne ñu nag lu jëm ci wàllum campagne électorale Amadou Ba moom nag daal dinañ koy jiiñ rek ni moom moo indi ay jafe nga xam te publier nañu ko le verdict yéeni kaay nañu lu jëm ci wàllum foncier ci biir réewum Sénégal mu ne régime de Diomaye au banc des accusés ñi nga xam te ñoo bokk ci nguuru Diomaye ñoom la ñu gën a tuumaal jamono ji leen ak ñeel wàllu woowee l'info quotidien nañu exercice du pouvoir tournée africaine visite de Mélenchon maanaam ni nga xam te loolu moo war a nekk taxawaayu ilimaani jëwriñ ji ni ki démb ba muy dajooloo ak waa bureau politique ñoo ko sàkk ñu ñëw ci ñoom ngir waxtaan ak ñoom ci ni nga xamante yi noonee la tax taxawale Pastef waaye itam ci biir Sénégal danañu fi dalal euh, benn woy politique bu mag bu réew bu France di Jean-Luc Mélenchon Ousmane Sonko di ko xam ne ci biir l'info quotidien l'éveil quotidien nañu nag programme xëyu ndaw ñi daal mooy lu toll ak ñaari junne ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay xëy daal dinañ koy créer ci kër gi nga xam te moom moo di AGETIP l'éveil quotidien dikkaat na ci mbir moomu dikkaat ci itam la nga xam te ni moo xaw ni ki démb ca Banjul foofee nag mi Bassirou Diomaye Diakhar nga xam te yëkkati na ko fa nag mu ñeel ah, ah, ci kaw Palestine njiitu ah, ko bu baax ci biir journal bi yor yor quotidien nañu nag lu jëm ci wàllum douane déclaration préalable d'importation maanaam DPI ñu ne nag un nouveau pas dans la modernisation des procédures et la sécurisation des recettes lu ñeel nag da xam te noonu lañ koy doxee mu jëm ci wàllum lempo gi ci la ñu dugal ci biir réew mi fas nañ ko yeesalaat noonu noonee la ko journal bi yor yor quotidien daal di xamle la voie plus nañu le Sénégal préoccupé par la situation catastrophique de la bande de Gaza maanaam jafe-jafe yooyu am foofee ca Gaza réew bu Palestine réewum Sénégal nag mbir moomee ñor na ko lool ndax njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye àdduna ci niki démb foofee ca Gambie ba antenne yéenikaay nag moom xëy fësal ci xëtam bu njëkk nataalub njiitu réew mi Bassirou Diomaye ne ñu nag nomination dans les directions Kimil plan Sénégal émergent Diomaye Sonko ñu ne la dure réalité du pouvoir maanaam la nga xam te digee woon nañu ko la nga xam te ni bëggoon nañu ko ak li nga xam te moom la ñu fekk ah, ci biir pouvoir bi xaw na war a lool lool tribune yéeni kaay nañu nag lekk naan ak lu jëm ah, ci wàllum ah, kaaraange ak dëkkuwaay tamit mu ne de vrai problème qui attend de vraie solution maanaam loolee ay jafe-jafe la yoo xamante ni ci biir réewum Sénégal ay saafara la ñu cay xaar waaye tam ci biir journal bii di le quotidien ba léegi ñu gis ci nataalub wooy taskatu xibaar bi di ma jàmbal jaay mu ne l'état ne peut pas maanaam nguur gi daal mënul daal di fexe daal ba def lépp loo xamante ni moom moo ko neex am na foo xamante ni foo la war a mën a yem journal bi di la tribune yéeni kaay xëyaat ci mbir moom léegi tribune yéeni kaay na nag ci diggante Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko mu ne ñooy Bassirou Diomaye Faye un président sans opposant mana koo xamante ni amul ak ku jeex daal di fësal ci dataal bu njëkkaam ki nga xam te moom moo di Ilimani jëriñu Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall Macky Sall ak ki nga xam te moom moo di Idrissa daal nguur gi amul kujje jamono jilee nañu lu jëm ci wàllum chantier naval du Sénégal mu nekk pourquoi les autorités ne veulent plus des portugais ñi nga xam te ñoom ñoo yoroon mbir moomu la di ay portugais yoroon boobu le projet euh, lii quotidien xëy sampub laaj mu ne nag ana lan moo kon nguurug Sénégal bëggatu leen ay kat Pierre Goudiaby Atepa ci biir journal bi ba léegi mu ne ñu nag je n'ai pas vendu le sud de Radisson à trois milliards maanaam kàddu yi nga xam te yëkkati nañ ko fan yi ne moom foofe nga xam te tabax sa jaay ko ci ñetti milliards ci day du dëgg dara amu ca Pastef yi tamit fas yéene na daal di taxawalaat nekkinam ci biir réewum Sénégal dajaloo nañ ñi ki ci njiital ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko njiital parti bi daal dinay xam ne li nga xam te ni fas yéene nañu ko amal jamono ji leen lii quotidien di kàddu na ci ca na mu gën a yaatoo laas quotidien nañu day le parti démocratique sénégalaise intronise Karim Wade maanaam gën nañu dëggal nekkinu Karim Wade ci biir boobu le parti laas quotidien moo ñu ko bu njëkk nataalub Karim Meïssa Wade doomi Abdoulaye Wade ji njiital parti démocratique Sénégal mbokki mu nekkoon li gënoon fës ci yéen i kaay tey nag dañoo ñëw foo xam ni dama koy waxee barki démb président de la république Bassirou Diomaye Faye naam dem na Mbour 4 xool suuf sa nam demee jël ay décision jëmale ci wante yàlla xam na ne bu ñëwoon fii ci aéroport bii bu ëgsee bu amul sax day xëm daanu ci suuf mu nekk pàccoo suuf gu méttee métti goo xam ne tey nag dañoo dikk ak yéen ak information yu wér ci dëggu ay document lañ am naa dun source boo ko dëgtal ñu ko nekk koo bu baax a baax ci dëkk bi ni ñu koy doxalee def lépp lu ñu mën ngeen dégteel li nga xam ni moo tukkee ci suufu Sénégal aéroport bi ñu ngi ci voor bi li ngeen di seen mooy biir aéroport bi dañ koo paccoo ba mu àgg daanaka comme ni ko journaux yi baree di wax Sénégal ni ki jamono jii dañ koo séddoo mu nekk rek loo xam li nga xam ne ni li nga xam ni moo di aéroport bi sursis yi nag daanaka buñ liiree ba ci li nga xam ni moo di biir benn entreprise bu nga xam ni daf fi am suuf bu takkoo takk boo xam ni daanaka bu liiree document yi ni mu ko amee lépp ay njuuj njaat bari na ci lu dëppoowul ak yoon ni ko duppee benn entreprise bu nga xam ni mi ngi nekk fii ci diwaanu Ndakaaru basé wu fii di yëngatu ci wàllum matério ak lu mel maanaam defar ay matériel ak di ko jaay jëm ci wàllum maanaam li nga xam moo di euh, nu ma ngi koy waxeeti euh, matériel ni jaay di ko tabaxee kër ak yu ni mel ñu duppee ko bati borom bati Batiprome defe naa Sénégal bu nekk boo demee lii di lii di internet liir ko di nga ko gis mu nekk société boo xam ne nag dañoo tudd turam lu bëree bëree bëree bëree bëri ci suufu Sénégal surtout fii nga xam ne moo di aéroport bi ñu dénk leen fii lu bëree bëree bëri tur nag am na ci am na tur boo xam ni mën nañ ko dégtal boo xam ni ci ñu yàgg dara ci reportage bi ki leen koy dégtal dina daal di dikkaat ci li nga xam ni moo di kan moo moom entreprise boobu kan moo ko jiitee kan moo ko moom ak suuf gi nga xam ne jox nañ ko ci aéroport bi nekk loo xam ni source bii moo koy firndeel ñu am ko ñu ñëw fii Fallou jëlal fële ci kaw sama technicien nga gis ni lépp suuf boo xam ni dañ ko pàccoo dégtal leen ko ci ans yi passé loolu laay wax rek ma président comme nam doxantoo Mbour 4 war naa mën a doxantu ñëw fii xool mu nekk ñaawti fu bëree bëri woo xam ni askanu Sénégal nan ngay xoole lii naan Dakar moom la bopp dëkkuñu fii bëgg koo yar yaral jaay ko wala lu ni def ko loo xam si dëppoowul ak yoon comme nañ koy gisee lii boo ko gisee da naan ci village laa nekk yaa ngi biir Dakar yaa ngi biir Dakar monument de ngi nii sa ginnaaw voilà comme nañ ko gisee turu Bati Prome nag moo nekk li nga xam ne moo di euh, document yi ñu yor euh, doc Bati Prome tur moo nga jël turu doomu aadama boo xam ni yor na ay terrain yu bëree bëree bëri ci Sénégal di leen ko propriété privée la maanaam ñu ay borom doole ñu dëkk ci dëkk bi ñoo ko paacoo jël ko borne ko kenn ku nekk jël wàllam jëlu leer nañu di ngeen ko am d'ici vingt heures wala vingt trois heures laaj bi nga xam ne suñ soxna moom coono dina leen ci diggal dégtal li mu leen wax nag bu leen ko tànn benn yoon du ay caaxaan ay information yu wér ci dëggu des preuves à l'appui ay feuilles yu nga xam ni ay turu doomu aadama yoo xam da leen a paac alalu Sénégal lu bëree bëree bëree bëri moo nekk fii ngeen di gis koo xam ne source bu fiable la bu jaar boo xam ne yàgg naa ko su suufu Sénégal spectateur incha allah ngeen gisal ko seen bopp mu nekk loo xam ne ñaaw na ba fa ñaaw yam au niveau de l' aéroport international bi nga xam ni ci la nekkoon bu njëkk fii euh, fii nga xam ni moo nekk premier aéroport bu Sénégal fi lañ doon ko léegi ñu paatoo ko lépp di terrain gis nga li lépp ay terrain la pourtant yaa ngi Ndakaaru daanaka mais danga nga naan Dakar dafa xat alal ko Dakar xatul pàcc bu ndaw ñoo paatoo li nga xam moo di moomeel askan mu nekk ñaawte foo xam ne daanaka foo ko dàkk weesu na ko